mii jëwriñ ci sa njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara mii sa jëwriñ ca njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. moo ànd ak li ëpp ci mboolem bunti kër yi Cheikh Mouhamadou Baara moo ànd ak li ëpp ci mboolem bunti yi Cheikh Mouhamadou Lamine Baara. Euh, xam naa su ma tuddee sëriñ Cheikh mii. nee na xam na bu tuddee Serigne Cheikh mii. Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké. Serigne Cheikh Ahmadou Mbacké. mi nga xam ne mooy xalifab sëñ Sidi Ndar. mu ànd ak sëñ Amar sëñ Cheikh Coro sëñ Amar. mu ànd ak sëñ Cheikh Coro moom sëñ Amar. sëriñ Baara sëriñ Abdul Karim. Eh, ak sëriñ Baara Abdul Karim. xalifa sëriñ Abdul sëriñ Abdul Karim. ak mi ngi xalifa sëriñ Moussaïn Baara. sëriñ Abdul Aziz. xalifa sëriñ Abo. xalifa sëriñ euh, mu ne sëriñ Abdul teewal fii waa kër sëriñ Xaadim Modou Baara. teewal fii di kërif di xalifa sëñ Abdul Karim sëñ Abdul Xadim moom it mu ànd ak ay rakam kan ci waa sëñ Ahmed waa sëñ Bas mu ne sëñ Basiiru moom it ñëw na di waa kër sëñ Ahmed Baara ànd ak sëñ Alaaji ànd ak sëriñ Alaaji ak sëriñ Malick ak sëriñ Malick Serigne Khadim mu Cheikh Sidi Mokhtar. ak Serigne Khadim mu Cheikh Sidi Mokhtar. ànd ak Serigne Modou xam na ku mu tuddul keneen itam. xam mu tuddul keneen it. Serigne Bachir Mbacke. mu ne Serigne Bachir Mbacke mooy mi ngi fi. mu Serigne Abdoul Aziz Baara mu Serigne Abdoul Aziz Baara. ànd ak Serigne ak Serigne Ahmed. ak Serigne Abdou Mbacke. ak Serigne ak mboolem ñi fi nekk ñëpp. teewal bàyyi Moustapha Diop. teewal bàyyi Moustapha Diop. mii xalifab sëñ Ñaan Diop. mii sëñ Daam Diop. Ñaan Diop mu sëñ naan sëñ Ñaan Diop. mu ne El Hadj Daam Diop. Touba Ndiobène Ngunta. Touba Ndiobène Ngunta. Serigne Sidi Amar. Serigne Sidi Amar. xalifab sëñ sëñ sëñ Modou Amar. xalifab sëñ Modou Amar. ak mboolem ñi ci ànd ñëpp ci délégation bi. nee na Serigne ñëw na. di dox tànk ya nga xam ne. moom la mag ñi daan dox te muy tànki kilifteef ak tànki taalibe ndaxte yaay Cheikh Mouhamadul Moustapha ndaxte yaay Cheikh Mouhamadul Moustapha yaay Cheikh Mouhamadul Lamine Baara te li la waroon sa digganteeg sa yu baax yi te li la waroon sa digganteeg sa mag yu baax ya ci ak kilifteef ci kilifteef aku taalibe aku taalibe rawatina Cheikh Sidi Mokhtar rawatina Cheikh Sidi Mokhtar lépp matal ko ba mat sëkk ginnaaw itam. moo tax gannaaw seen gannaaw itam. taxawaay bi nga war a taxaw seen ginnaaw. taxawaay bi nga war a taxaw seen gannaaw. taxaw nga ba mat sëkk. dara desu ca. dara desu ca. moo tax Cheikh Moustapha wax ni. moo tax Cheikh Moustapha wax ne. xëy na xelam mënta bañ a ñàkk dem ci waajur ya. xëy na xelam mënta ñàkk dem ci waajur ya. waaye amul dara luñ ciy jàmbat. wara lum dara lum cay jooy. ndax saa su geesoo gis la. ndax lépp yaa ngi koy matale. bis bii nag su masaa ñëw. bis bii nag bu masaa ñëw. mag ñi nii lañ ko daan defee. tàmbalee ko ca Serigne Abdoul Aziz Baara. ba ku ci mag ci ñaari kër yi. ba mu agsi Cheikh Sidi Muxtaar. waaye ndigal li nga joxe. waaye ndigal li nga joxe. mooy bis bi ñu yaatal ko. mooy bis bi ñu yaatal ko. ndax bisu Cheikhul Xadim la. ñëpp a ko bokk. waaye rawatina njabootu Cheikh Moustapha. ak njabootu Cheikh moom Lamine Bara moo tax saa su bis bi ñëwee moo tax saa bu bis bi ñëwee Serigne Ousmane mi ngi ko dénk mu ànd ko taalibe yi mu ànd ko taalibe yi ñun lañuy njëkk a woo ñun lañuy njëkk a woo liggéey bi ñu ciy liggéey suñu accès nee na ñoom ñii lañ ciy jiital loolu nag dal na xel bu baax a baax moo tax Serigne Moustapha Matiley ñëw tey biñ ñoo suba la màggal gi gannaaw ba ñu ci amee sa ndigal. ñëw feddali yooyu ma wax. ñëw feddali yooyu ma wax lépp. muy kilifteef gi muy kilifteef gi. ak taalibe gi ak taalibe gi. bu subaa ci bis bi nag. bu subaa nag ci bis bi. gannaaw dañ koy dundal foofa. gannaaw dañ koy dundal fa guy mbind. ca Touba guy mbind. ca Touba guy na ñëpp defee ko seeni kër. moo waral ñu ñëw tey. di feddali si yooyu yëpp. di la ñaanal yàlla suñu borom. mu guddal saw fan. may la ak wér. ba lépp loo xam ne xalaat nga ko ci sam xel yàlla suñu borom defal la ko bi jaahi sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam te nu ànd ko yow nee na sëñ Moustapha nag mi ngi sant bu baax a baax di sant it mboolem ñi mu bokk Cheikh Mouhamadou Bara nee na day wax ne moom seen jëwriñ rek la di wax ne jaam jaamaan rek la nee na woote yim leen di woo dafay jege te saa du saa su wootee fu waay man di ne lu mu sori sori dana bàyyi ay iteem ñëw fekk si ko kon mi ngi sàkku nga ñaanal leen ñaanal mboolem taalibe yëpp képp ku ne lu mu ci waay soxla mu ci jaamu yàlla ga mu ci wér ga mu ci taalibe ga yàlla su borom defal na ko ñëpp ci barke bis bii tey nee na sëñ Moussa di dellu di sàkkuwaat ba tey nee na bari na ay nax-nax. bari na ay balaa. bari na ay balaa. bari na ay gàllankoor. bari ay faatu. bari na ay faatu. nee na rawatina ci jamono jii. muy sàkku nga ñaan ca loola. ci darajey borom bis bii. lépp saafaroo. mu ne waaye njaboot gépp ñi ngi àndaat. wax ko ne ko. na la see na la seeral ci sa kanam. ne Serigne Moustapha Matiley mii. fa waay juree jaaroon. ak nañu daa jëflante ak seen i njaboot nee na foofu rek la jaar te da koo gën a yaatal gën koo dundal gën koo sellal nee na kon njaboot gi yëpp ñi ngi ànd ak moom di la seereel jàpp guñ ko jàpp di wax ne ñoom jàppe wuñ ko sax mag waaye waajur lañ ko jàppee ndax fa suñu waajur daan taxawoo nee na foofu leen taxawoo kon nee na waajur la ci ñoom nee na sëriñ ci ñoom ñuy ay taalibeem nee na neex naa àndal lool euh, ndax nee na bokk naa ñoom lépp lépp ñoo ko bokk nee na lépp ñoo ko bokk muy dereti ku tedd ki waaye li ñu gis ci moom waaye nee na gis nañ ci moom it li ñu yilife am nawle li am nawle mi ngi ci moom mi ngi ci moom kon nee na ñoom ñëpp ñu ngi sàkk nga ñaanal ko baax ñaanal njaboot gi yëpp yàlla def jàmm ñu yàgg fee ñëw yàgg la fee fekk ci daraje Cheikhul Khadim jërëjëf Mbacke macha euh, Cheikh mu ne mi ngi jéggalu ba tey dafa am lu des ci kàddu yi tuuti nee na liggéeyu lislaam bee nekk ndakaaru di néegu yàlla suñu boroom nga xam ne Cheikh Saalih mbakke moo wutoon barab ba ba defar plan ba amoon ci Niger ak yéene ba amoon yéene yi tàmbali ko sëriñ Alaaji Mouhamadul Min Baara Falilu ñëw teg xeer wa ba am lañ fa dajale woon bi Cheikh Sidi Muxtaar ñëwee it mu tàmbali nag liggéey ba liggéey bu lislaam boobee ba liggéey ba àgg na ci liggéey loxoy Cheikh Mouhamadul Mountakha mu wax nag ne ñooñu nga xam ne dañoo yoroon liggéey ba mu jaar ci seeni loxo di Cheikh Salih Mbacké di Cheikh Mouhamadul Lamine Bara di Cheikh Sidi Mokhtar kenn ku nekk dafa am bis buñ la ca jagleel mu ne bisu talaata ba dañ ko jagleel Cheikh Salih Mbacké bisu àllarba ja ñu jagleel ko cheikh Mouhamadou Lamine Baara bisu alxames ba ñu jagleel ko cheikh Sidi Muxtaar nee na sëñ Mbàkke yu fay bi mu ñëwee seet si sëñ Muntaqa boole koog Abdoul Ahad Ka mu ñëw ci sëriñ Moustapha wax ko ko mu ne ko nangul na leen ko waaye nee na loolee moom mu ci dara nee na lépp yaa ko moom mi ngi say loxo.

mi ngi lay sant waaye cant gi nag mu ngi ciy jiital sunu borom subhaanahu wa taala mi nga xamante ne moo dogal lii jaarale ko fu tedd lool ba mu egsi ci moom waaye lépp doonaat cërub sëriñ Tuubaa mu di ko ci sant di ci sant sëriñ Tuubaa bu baax waaye di ci sant Cheikh Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mi nga xam ne jataay yi yëpp ñoo ci ñoo ko waral mu wax ni moom de xelam dal na ci yow lool ndax digganteem ak sëriñ Cheikh Matile ba mu doonee sëriñ Baara ñëpp xamoon nañ ko ca dara mënu ci woon a yokk bim mu doonee sëriñ Touba loola it. li war a jëtaay bi rek moo ko waraloon kon mooy lu nga xam ne ñun ñii te yow tey nga fi sunu kilifa mi ngi nu koy dénk mu doon loo xam ne kenn ku nekk ci ñun war na ko bàyyi ci boppam fas ko yéene dundal ngir jëmmi yàlla ak ñooñee nga xam ñoo ko taxawaloon ndax ñooñu biñ ko dundalee ba egsi fii de ñëpp ak yokk ak njariñ rek lañ ci gis ak bokkoo gu noppale ci ñépp mu ne mel ni ab sagla ci kër gi di kër seex Mouhamadou Moustapha di kër seex Mouhamadou Lamine ndax kat ñu bari ñu koy wax ñu baree baree bari ci askanu Mbàkke ñi ngi wax taxawaay bii am ci ñaari kër yi mu doon loo xam ne kenn ku nekk ci ñun. jàpp nañ ne lu ñu war a sàmmoonte ci sunu biir la war ko dundal ci am yéene sax ko dundal yow nag nee na léer ci war lépp yaa ngi koy def mi ngi lay sant ci taxawaay bi nga xam yaa ngi koy taxaw ci biir kër Serigne Bara ndax moom nga fa taxawal jàpp na ne njaboot Serigne Bara gépp moom moo leen war di saytu ci biir activité ni muy saytoo fii mu nga nekkal ko foofa dafa def loo nga xam bu fa nekkoon mënut a def lu ko daw mu nekkal la fii it nag ndax fii it say rakk fi ne ak say mag te kenn ku ci ne war nga koo taxaw mu nekkal la fi kon nee na noppal nga ko lool mu ngi lay sant ci loolu di santit njaboot gi nga àndal gépp ci ka ci gën a tàmbale ci yow ba ci ka ci gën a doon tuut tànk mi ngi koy sant di leen xamal ni ne du leen fàtte benn yoon ci li ngeen seq di leen ñaanal waaye di sàkku ci yéen ngeen di ko ñaanal ndax xam nañ ne ñaan moom ku ne la war waaye nag yaakaaris na ko ci yéen lool moom nag loolu day liggéeyam dafa amut benn yitte amut it benn sañ-sañ bu dul loolu ci di toppatoo askan wi waaye rawatin njaboot gi nga xam ne ñoom la ko yàlla boole ci kenn jiituwu leen ci loolu ci gàttal rek sëriñ bi xam naa li nga yéene mun ma ko wax te am naa mbetteel lool ci wax ji it nag kon maa ngi koy jégalu bu bu lu ci dëng rek maa ngi koy tuubal yàlla dina ko tuubal waaye sunu sunu lu lu lu lu lu lu bett la rek ñaan yàlla sunu borom ngeen yàgg fi lool yàlla ngeen fi yàgg ci wér yàlla na yàlla eggale seeni i yéene ak seen i mébét ci dara ji Cheikh Mouhamadou Lamine Bara taar ba newoon ca Moustapha